dalal ak jàmm ci Sen Sport 221 Amath Ndiaye Diédhiou jeune attaquant sénégalais bi nekk foofu la ci Real Mallorca moom daal dinay dugal juróom-benneeli balam ci saison bi ak équipe le moom nag dañu ko able mu jóge fi nga xamante ne mooy ci Xetafe dugal na juróom-benn bal ci saison bi le benn bal bi nga xamante ne dugal na ko moo may ñi nga xamante ne ñu Real Mallorca ñu daal di dóor Albacete benn bal ci dara ñu seetlu ne kat ñetti week-end yi yëpp kii di Amath Ndiaye Diédhiou day dugal kon jamono mu ngi ci forme bu jéggi dayoo mu nekk nag joueur bi nga xamante ne Xetafe ñoo ko dal di able ndax kat dafa amoon blessure bu yàgg bi nga xamante ne dalal na ko bi mu ci jogee nag mu xaw a manqué li nga xamante ne mooy temps de jeu li waraloon ba ñu able ko foofu la ci Real Mallorca jamono yi nag jotaan na li nga xamante ne mooy formoom benn bal bi nga xamante ne dugal na ko moo waral ba sax Real Mallorca jamono yi di wéy di des ci bopp classement bi foofu li nga xamante ne mooy deuxième division bu Espagne bu fi saison bi emoon ci jamono yi kon Real Mallorca dañuy dal di monter ci li nga xamante mooy La Liga ki nga xamante ni itam moom la ñuy wax Younous Sankhare jógee fi nga xamante ni moom la ñuy wax euh, CSKA Sofia yàggul dara nit ki fan yi rek mu dal di signé ak club bi nga xamante ne mooy Panathinaikos dal dina joué match mu njëkk moom ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Niass jógee fi nga xamante ne mooy ci Lille ñu dal di daje ci équipe boobu li def Panathinaikos nga xamante ne mooy Younous Sankharé tey moo dal di dugal premier matcham ci équipe boobu li nga xamante ni mooy Panathinaikos ci Grèce mu dal di dugal premier biom ak équipe boobule Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom dal nañu koy convoqué ci match bi nga xamante ni Olympique Marseille war nañu ko am seen diggante ak Paris Saint-Germain ni suba ci dimanche ji lay doon mu nek match bi nga xamantene man nañu ko tuddé sax ab classico ki nga xamantene moy jeune attaquant bi di Cheikh Amadou Bamba Dieng joggé fi nga xamantene moy jambar bu yagul dal di signé ci club bobu di Olympique de Marseille mu dal di jot convocation bu ñëk ci match bu am solo bobu nga xamantene Paris Saint-Germain war nañu ko am seen digënté ak Olympique de Marseille Alassane Daw mom tay nekul buteur way passeur décisif la ci match bi nga xamantene ne Istanbul Basaksehir amon nañu ko seen digënté ak Fatih Karagümrük ki nga xamante ne mooy Alassane Ndao seetlu nañu ne kat weekend yi yëpp chaque weekend dina nekk bi tax ak boobu boobule waaye nag tey jii dugalul waaye moo paas benn bal bi nga xamante ni Fatih Karagümrük am nañu ko seen diggante ak Istanbul ba Başakşehir bu Demba Ba dañu leen dóor benn bal ci dara Fatih Karagümrük bu Alassane Ndao moo dóor Istanbul Başakşehir bu Demba Ba benn bal ci dara kii di Alassane Ndao moo daal di paas benn bal bi nga xamante ni xew na ci jongante googule Pape Alioune Ndiaye moom teewul ci match boobule bi moo nekk ñetteeli match bi nga xamante ni mu ngi koy wuute moom nag kayiti xibaar yi sax ñu ngi fésal ne moom Pape Alioune Ndiaye day dem fële nga xamante ne mooy ci arabi Saoudite donte ne dara officiel agul waaye nag mu nekk joueur bi nga xamante ne Stoke City ñoo ko daal di able foofu la ca Fatick Karagum Ruk waaye nag mu ngi desee ak ñoom contrat ba déwén muy 2022 jamono yi nag kayiti xibaar yi ñu ngi fésal ne moom kii di euh, Pape Alioune Ndiaye jege na loolu ngir signé ci benn club bi ñu tuddee Al Ain te mu nekk fële nga xamante ne mooy ci Arabie Saoudite Sergio Ramos mi nga xamante ne ñu ngi doon séentu ak dellu seem niki fan yi ak équipe bi de Real Madrid kayiti xibaar yi fesal nañu ne dina gën a desandi ci toogaay boobule ndax kat dafa am blessure ci li nga xamante ne mooy ci zone bi lii nag dina ko jël lu toll ci juróom-ñetti semaine wala juróom-benn semaine muy weer ak genn wàll bi nga xamante ne Ramos dina ko toog tëdd ko football kon du mën a jouer ci li nga xamante ne mooy huitième de yi nga waaye nag ak jongante ci topp weer daal ak genn wàll moom la kii di xibaar yi fësal ni kii di Ramos dina ko toog te du ko football. Mohamed Salah mën na bàyyi Liverpool buñ sukkandikoo ci kii di xibaar bi di Marca mu ngi xam ne ne Liverpool ñu ngi def ay pexe ngir mën a jot ci ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé waaye nag ci kaw loolu kii di xibaar bi fësal na ne bu fekkente ne Liverpool dëggal nañu seen bopp ci somo bi mooy transfert yii di ñëw ba jot ci nga xamante ne mooy Kylian Mbappé ki nga xamante ne mooy Mohamed Salah mooy ki nga xamante ne mooy dal di génn club boobu la di Liverpool Ligue 1 sénégalaise lañu koy jéxalé résultat wu match yi nga xamanténi Jambar nañu ko ci samedi ji Jambar ak FC dañoo match 0 partout Giraffe dafa dalal Jambour dal diko 1-0 NZB Stade de Mbour moko fekk dal diko 2-1 Seneps Génération Foot Mokofek fekk 2-0 Douane Dakar Sacré-Cœur dañoo match 1 bi partout Mbour Petite Côte dafa dal di dalal US Gorée dal diko 1-0 suba ci dimanche ji Casa Sport dina jouer contre AS Pikine